asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi yëkkati ay kàddu ci turu sëriñ Amdi Fall mii toog di jëw jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall muy kàddu yoo xam ne mu ngi bàyyikoo ci moom jëm ci mboolem murit yi ak képp koo xam ne kii rek yaa ngi nuy teewlu walla kàddu yi mën naa egg si fi yow li jiitu ci ay kàddoom nag mooy yeesal pas ak yaakaaram ak njëbbalam ci du Modou Mountakha di ko ñaanal yàlla sunu borom guddal aw fanam yàggal ko fi lool te wéral ko ba naa lii mu am liggéeyal ko sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul ak ña ko jiitu ñëpp mu def si lu kawe njortam di ñaanal njabootug sëñ tubaa gépp di topp ci gannaawam naka noonu muy sant ak di yeesal ay ngërëmam ci ñi nga xam ni ñoom la bokkal Cheikh Ibrahima muy njabootug Cheikh Fall gi mu àndal liggéey bu màgg bii di leen nuyu te di leen sant di leen gërëm di fedd li eh, ak jàppam si ñoom ñëpp rek di nuyu taalibe yi fu nu mën a ne muy murit yi di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal sama borom kàtt kàttanal leen bali li sëriñ bi bëgg lépp nu ma ne ko ni ko sëriñ bi bëggee te defe ko noona jataay bii nag sëriñ bi moo ko sàkk woon muy sëriñ di Fall di jëwriñ maam Cheikh Ibrahima Fall li waraloon càkkutéef géet li mu nu si digal nu wax ko mooy mi ngi aju ci xew-xew yu bari yu fi xew ci ginnaaw fan yii ci ginnaaw muy loo xam ne dëppoowul ak lii nga xam ne moom la yoon wi baaxoo di doxe noonee muy kàddu yoo xam ne dégg nañ ko mu yaatu lool ci tur di si tudd aw turam ak di si tudd turu Cheikh Rafal ak njabootuk Cheikh Rafal te moom muy jëmmi Cheikh Rafal toog yor baat bi te loola de bàyyi ko wut si moom yëgu ko joxewul ndigal la moo taxoon mu jàpp ni yell na mu yëkkati kàddoom gannaaw ba nga xam ne wax jooju lu si bari dem na ba àgg si jëwriñ ji sëñ Touba ji di Cheikh Modou xaa wax ji àgg si mboolem njabootug sëñ tubaa gi ak njabootug Cheikh Rafal gi te moom muy jëwriñu Cheikh Rafal toogal fi Cheikh Rafal toogal fi murit yëpp di ñagub yoon wi nag ndax Cheikh Rafal moo naka jëkk moo doon ñagub yoonu murit muy xamle ni ñoo ñi nga xam ne dañuy tuddoo ni danoo bokk si kër gi wala danoo bokk si njabootug Cheikh Rafal te dox tànk jéego yooyu nga xam ne dox nañ ko wax na ni ñoom day tooñ nañ yoonu murit tooñ nañ sëñ tubaa tooñ Cheikh Ibra tooñ nañ murit yëpp te tooñ googee moom mii moo si jiitu ndax lépp lu nu wax mu jëm si kër sañ tubaa lu bokkul ak ndigal loolee ku ko def ku ne moom mii nga tooñ ndax mooy jëmmi Cheikh Ibra loola wallam la moo ko warloog moom mu bëgg a leeral nag murit yëpp moom fa mu nekk day wax ni moom li ko fi indi te bàyyiwu ko fi bàyyi ko fi weesuwut lëggeel sëñ tubaa moom la Cheikh Rafal defoon diggam ak sëñ Touba jox ko boppam ba desewul dara bàyyi ab juddoom bàyyi àlluwaam bàyyi xam-xamam bàyyi darajaam bàyyi lépp dikk jox boppam sëñ Touba ne ko dan liggéeyal ko liggéey boo xamante ni bii kenn mësu koo dégg si taarix du si li jiitu woon sa yonent yaag nit ñu baax ña ni sëñ tubaa ànde woon ak Cheikh Ibrahima Fall wala ni Cheikh Ibrahima Fall toppe woon sëñ Touba mosee su koo dégg wala nu xam ko wala nu gis ko lu na mel ànd bu mel lam ko jural nag ñëpp xam nañ ko mooy mu dem bay Babil Mouridine rek yoon wi li muy rëy rëy ak li muy yaatu yaatu yaatu da ngay mel ni Cheikh Ibra Fall dox doxinu Cheikh Ibra Fall ñu soog laa boole si yoon wi waaye loo mën a dégg keneen ku mu mën a doon doxin woo mën a dox wu wuuteeg doxinu Cheikh Ibra Fall waroo ak li nga xam ne moom la Serigne Touba bëgg ndax lu Serigne Touba Cheikh Ibra Fall mës jëfal Serigne Touba rek Serigne Touba sant na sa gërëm na te nangul na ko ko te mosuñoo dégg fu ko Serigne Touba aayee dara wala mu yedd ko kon la Serigne Touba bëggoon Cheikh Ibra Fall sa loolee rek la newoon te boolewu ko woon ak dara da ko doon wax ni ko bëgguma àjjana ragaluma sawara yow rekk laa bëgg féetal ak yàlla yow mi ko xam ma féete ak yow man mi la xam jox ko ak dundam jox ko ak yëngutoom jox ko ak dalam jox ko addinaam jox ko àllaaxiram kooka nag amul jotug di jëf lenn loo xam ne wóote na wala waroon na ak ndigal yi nga xam ne mooy bàyyikoo ci Sëriñ Tuubaa tey jëm ci murit yi kon sëriñ Amdi Fall wax ne li ko fi bàyyi moom mooy lëggéeyal sëriñ Tubaa li ko fi bàyyi mooy ndigali Cheikh Modou Muntaxaa mi nga xam ne mooy sëriñ Tubaa lépp lu sëriñ Tubaa bëgg muy Cheikh Modou Muntaxaa loola mooy ak bëggam lépp lu sëriñ Muntaxaa jublu loola mooy ak jublam waaye lépp lu sëriñ Muntaxaa wan ginnaaw na xam ne sëriñ bi du mooyu na ko te dootu ko geesu ba mukk seddi na loola mooy kàdduy sëriñ bi boo ñëwee fii Tubaa xam ni sëriñ bi mu ngi si ndigal li ko sëriñ Muntaxaa jox Baay Faal yi amuñu jotu nekk di wëndeelu wala ñuy taxawaalu wala ñuy dugg lu seen yoon nekkut bokk ci yoon wi nag sant faal mayut kenn cër bu tax mu mën a wax ci turu yoon wi ndax Seera Faal dafa am lu mu nu faggul loola jamonoy moo Cheikh Modou Moussa Mbacké ba sëñ Tuubaa su suñuy bët Cheikh Ibra Fall moo waxoon sëñ Modou Moussa Mbacké ne ko toogu gii de boo ci toogul kenn du ci toog ne ko sa baat dong la ñuy déglu sa kàddu dong la ñuy déglu ba tey jii ku fi mag ci njabootu sëñ Tuubaa rek toog jataay boobee te loo wax murid yëpp sa la ñuy tënku jàngaleem Cheikh Ibra Fall moomee nag segam moo dox ci kër sëñ tubaa asamaak fii mu bàyyi koo di woon kër Cheikh Ibra Fall benn baat moo am si kër Cheikh Ibra Fall mooy baatu ki nga xam ne moo fi toogal Cheikh Ibra tey muy sëriñ di Fall mu sëñ Modou Mbenda yàlla suñu borom yàggal ko fi kaddu googu yi nga xam kàddu guy jib ci turu yoon wi yaa xam Fall nga sant wala noo bokke ci Cheikh Ibra du cagintug ni danga saa bokk tax nga jàpp ni am nga sa kaddu wala am nga baat boo war a wax baat bi benn la sëriñ Amdi Fall la ko moom ndax mooy maam Cheikh Ibra Fall sëriñ am ni nag si li sëñ Touba digle li sëñ Muntaxa tënku rek la tënku si loola rek la ne kon képp ku dem fi barab di jàpp ni da ngaa bokk si njabootu Cheikh Fall ndax faal nga sant ne ab baay faal nga tax nga jàpp ni war ngaa wax si turu yoon wi da juum sëriñ bi nag nee na loola mayu ko ko kenn bay ba bay mënatu la seetaan kenn di doxe noonee ndax yoon wi la si sëriñ bi fagg woon ba léegi daa bàyyi woon léppam dundam gépp mu jaayante ko ngir yoon wi taxaw ba mel ni mu mel kon kenn du jóg di gone rawatina di si dox doxin woo xam ne da nga naan nu ma si neex laay doxe sëriñ bi nee ñoo ñii nga xam ne ñoo doon wax sa bis boobu nga xam ne moom la moom la moom la ku jigéen kooku doon woote nee na musu faa yeble musu saa digle dara kàddoom musu see jóg def na ko ni ko sëñ Muntaxaa def ni sëñ mun Muntaxaa def ay da Diallo noonu la sëriñ Amdi Fall mi def Aïda Diallo amu si ak yàq amu si ak defar te bu amoon ndigal ci saafara loolee moom mi dana ko saafara waaye day di ndigal lay teewlu moom dégluwul lu dul ndigal soxlawul jëfe xelum boppam ndigalu sëñ Muntaxa rekk lay teewlu sëriñ bi kam mën a jëflanteel mooy ka tënku si ndigal ndax ayda Diallo moomukat kat ñëpp maase nañ gis ni sëriñ Moodu Muntaxa woo na ko ba mu ñëw mu digal ko waaye ñëpp seere na nit la ko sëriñ Muntaxa digal da koo sànni ci àll ba lank ne du ko jëfe kon képp ku di murit rawatina nga di Baay Faal ngay suuxat lenn lu jëm si ayda Diallo dafa mel ne li sëñ Tuubaa bëgg yow bëggoo sa dara dafa mel ne li sëñ Muntaxa joxoñ yow jubluwoo ko te ku jubluwul li sëñ Tuubaa bëgg jubluwoo li Seex Muntaxa bëgg kon sëriñ di Fall mii di Seex Ibrahima Fall war na la ginnaaw ba faw te bokkoo si moom laaloo woo si moom si lenn sëriñ bi li mu digle mooy li sëñ Muntaxa wax li sëñ Muntaxa bëgg nañ ko def ndigal li lenn rekk la muy sëñ Muntaxa ko yor di ko joxe la mu wax ñëpp dégg nañ ko kookii nag doon woote bis boo bii tënkuwut si ndigali sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa mii sëñ Muntaxa woon na ko wax ak moom lànk ne du ko def kon kooku fetteerlu na aw na yoonu boppam ana kuy tuddoo murit nag dem naan da ngay da teew ci bisam ba di sa jël kàddu ba di sa wax ci turu maam Cheikh Ibrahima Fall te jàpp ni ab sët nga wala ku bokk ci kër Cheikh Ibrahima nga. am na ku wax ba tudd ni biir néegam ay photo nataalam la fa def te dana ko def sa mbedd ma ña nga xam ne jël nañ kaddu ci bokk ci njabootuk Cheikh Rafal ne ñu sant Fall lañ seeni baay di bokk ci njabootuk Cheikh Rafal ñu jël fa kaddu wax ci turu Cheikh Ibrahima te Cheikh Rafal nekk nii te ñëwuñu tàgguwuñ ko. waxunoo moom digalu leen ko santu leen ko ñooñee tooñ nañ sëriñ bi sëñ bee ko waxal boppam tooñ nañ ko te am na si lu ko naqari te buñ ko tuubut dinañ dajeek lu leen lor nañ xam ne sëriñ bi si lim ne mooy ndigali Cheikh Modou Mountakha yi nañ xam ne sëriñ bi si lim ne mooy njàngaleem Cheikh Rafal ma diggam ak sëñ Touba sëñ bi soxlawul leneen wootewul leneen am na ñoo xam ne ñi ngi wóor jël ay sabar di wër si dëkk bi di teg nataalu maam Cheikh Ibrahima Fall naan ku gëmut kii di wax wax ju tegg ñàkk teggin wax ju bon a bon di ko wax naan ku gëmut kii nangam ñooñee am na ñooñee gis nañ leen ñëw nañ fii fi sëriñ bi boox leen ko ñoom nag loolee ñu nekk nañ ko bàyyi waaye buñ ko bàyyiwut waxtu wu ñu ko gisatee sëriñ bi joxe na ndigal ni nañ te jëflante ak ñoom ba nu xam ne ñoom li ñuy def bokkul ak dara dara dara Cheikh Ibrahima Fall ak ko aju si Cheikh Ibra ab Baye Fall li nga xam mooy jikko yu rafet lañ xam si moom Cheikh Ibra Fall makaarimal axlaax da tëggee yoonam wii ab Baye Fall day yiw ab Baye day day day day sell ab Baye day jub ab Baye Fall day day day tabe day nangoo liggéey ab Baye Fall day déglu ndigal te du juyoo moom mukk sedd na day bëgg ab sëriñam yaakaar ko te du ko booleeg dara ku bëgg sab sëriñ nag doo ko teg jàkkaarloo moom di yëkkati kàddu yi tegginuwul sax mu di ko dégg loolee bokkul ak yoon wi nga xam ne yoonu taalibe la keneen ku mën a doon nag segam ñi sant faal lan la sëriñ bi bayatu mayut loola astement keneen ku mën a doon tey tuddoo yoon wi ndax damaa waxoon ni sant faal taxut nga am baat ci kër Cheikh Ibra baat bi benn la te sëriñ am dee ko yor loola Cheikh Ibra moo nu ko faggul képp ku ko bañ xamal ni bañ nga li Cheikh Ibra indi bañ nga li sëñ Tuubaa suuxat te loola boo ko bañee génn yaa génne sa bopp si yoonu murit doonatu ab murit kon sëriñ bi nee na nañu delloo si xel yi bu baax nañu delluwaat ci li nu sëriñ bi jàngale sëñëb laa daana wax ni sëñtuwaa Tuubaa daana leen digal ne leen saa bu ngeen demee ba melaw jamono bëgg leen a yóbbu si boppam yéen delloo leen seen bopp sa yàlla si saa bu leen ko waaj dafa mel ne melaw jamono nag lanu ñu toll fi mu ne moo bëgg a fab bi nit ñi ni am koom am xaalis bu fekkee ni da ngaa jëm si xaalis a leen fa yóbbu mën na noo amee feneen xaalis fu dul foofa mën na war na noo mën a sàmm seen ngor war na noo mën a sàmm seen judd bu rafet boobu war na noo mën a sàmm njàngale mi ñu leen jàngale war na noo bàyyi xel bokk yi nu bokkal seen rafaal nga xam ne ñëpp daw nañ wuti ko walis ñuy dem di tuutal seen bopp si loo xamante ne si boo xamante ne si du seen wàll du seen cër képp koo xamante ni kii nag yëkkatee yëkkateeti nga kàddu wala nga doxate si wàll rawatina sax si wàll wu jëm si Aida Diallo wala ku mu mën a doon lu wuutee ndigali sëriñ bi sëriñ bi nee na su boobaa matuwaay yi muy jël mooy dana la teg si aw yoon ba nga xam ne yow dëppoowoo ak li sëriñ bi bëgg ndax kat sëriñ bi joxe woon na ndigali nu woo procureur ba mu mu mu xam ne tooñ nañ yoon wi mu woo procureur ñu jëflante ak ñoom waaye loola àgg nañ si Baay Faal yi duñu sax kon nag nanu xam ne sëriñ bi li mu bëgg mooy nanu teg yoon wi fa mu fa mu war a nekk nañ nañ nañ ko suuxat te xam ne puso bi warta réer mukk di réer si ñun rawatina si moom du ko seetaan mukk am xelam du ko du ko seetaan dooleem du ko fay aw fanam du ko ko bàyyee lu lu mu jar dana ko si def te joxe na ndigal képp ku mën a doon si réew mi nga dox ak bitim réew nga wax si turu Cheikh Rafal wala nga dox si turu Cheikh Rafal lu wuuteeg ndigalul sëriñ bi sëriñ bi nee na boobaa jël na matuwaay yoo xam ne danga xam ne dugg nga si loo war a dugg te su boobaa loola si fekk rek loola yaa ko teg sa bopp sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amin faal amin amin amin faal amin amin faal